Tunkara fii. Alpha Yero Tunkara nekkoon na ci ñi nga xam ne ñooy jiiti jàkka ji waaye nekkoon na itam ñi nga xam ne ñoo ci mujjee génn loolu day seede rek ni mu bëggee woon jàkka ji ak gëm gëm yàlla. et cela témoigne cest la mosquée et sunu daayira bi nekk fii daayiratu imaan bu UGB fa la xamante si mbalaan wasifa yi daal si lañ xamante maanaam dañu daan laal mbalaan wasifa yi di dóor science yi euh, suba ngoon léegi ñu gis que si mbalaan bi mu nekk koo xam ni il assidu xam nga rek mbokk taalibe bu ñu demee ba bokk pas-pas bu ñu gisante dañuy bëggante si dañuy commencé di échangeante au début aw ma woon sax numéro si lañu échangeante noonu ba xamante noonu. alfa était un un un nekkoon na jullit bu sell loolu bokkoon na si liñ ko doon ràññee. mooy gëm-gëm bi mu amoon ci yàlla. ma indéfectible à sa à sa à sa à sa ku bëggoon diine la koo xamante ni mën na ni moo doon nodd ci jumaay village village bi jàkka ji nekk ci village bee ku fa doon nodd kon kooku noonu tey voilà ñun am na lu ñu nakari si si ci ci demam ñun ñoo ñun ñoo ñàkk ñun ñu fa ci lal bii nii lan daan toog man a moom bi muy soogee ñëw fii dégguloon olof bu baax man maa ko doon jàpp jàppale ci ay ay ay olof mën naa ne man maa ko doon jàngal ci olof parfois sax ma koy wax yoo xamante ci nii euh, da ngay dangay ngay da ngay da ngay reebates ils pris une si belle âme jël nañu nit ku baax lii naka bu leen jigee ma xam ni ñoom ay mbër lañ sont des des des vrais coriaces